mu nga comme niñ ko waxee woon rek jàngatu bés bi Chérif Dia xanaa ma bàyyi la rek nga door ak Abdoulaye si seeti jàngatu bés bi. waaw tey dañuy génn Sénégal wax euh, ba léegi rek ci Tchad ak la fa xew ba démb la ñu tàgge njiit réew ma woon di euh, Idriss Déby no maréchal ba euh, ba mu doon dem di xaraj yi rek ak rebelle yu fàq yi ba tax na kon rek ñu bëggoon cee taxaw ba léegi nag li naan zone d'ombre ci anam yi nga xamante ni faatee nañ ko am na ay interrogation Abdoulaye. Chérif loolu vraiment tey buñ ci taxawee. dañuy njëkk a fàttaliwaat nii Idriss bi mu ngi daanoo ci toolu xare version officielle bi toolu xare bi mooy am na mouvement séparatiste rebelle lañ leen di wax waaye am na am na aile politique parce que ay opposants lañu depuis 2016 au moins mouvement bi nga xam ne mooy FACT Front pour une alternance et la concorde au Tchad existé na am aile politique amit ay combattants dinañ ci ñëwaat parce que ay ñoo xam ne lañu ay généraux lañu woon sax ci armée bu Tchad. ñoo ko fondé nekk ci xeex bi muy jóge nag Libye di ñëw bu ñu nee président Idriss Déby foofu la ñu ko gaañee mu mujj cee faatu faw ñu taxaw ci xeex boobu nga xam ne nii moo amoon parce que dina tey xel aussi ci li ñuy for ci ni ñu ko gaañee ni mu ñàkkee bakkenam ba léegi ñuy wër bilan bi nga xam ne ni moo accompagné xeex yooyu bu doon xeexoo la boo xam ne jaxasoo bi am na ba ci confusion ñu rey ci ay nit ak yooyu ñu ne xayrul mais imaginer wu ñu président dem au front déjà ñu bàyyi ko moom kese mu nekk au front donte c'est pas la première fois sax muy dem moom di bokk ci xeexkat yi mais à découvert comme tu di ba xëy na mu mel ni ki à bout portant sax la ñu ko faatee parce que def naa ni li circulé te weddiwuñu ko image yooyu bu ñu nangoo ni image la mel na ni ki c'est-à-dire du euh, bal perdu wala loo xam ni dañ ko sox mu dem mais vraiment exécution lay niru parce que te loolu tey mu ngi ci xelu ñëpp xëy na nag egguñu ci fu mu jóge ak naka la ñëwee mais xeex bu ñu ne pëcc xoo la ka nga xam ne moom la ñu war a gën a garde wax dëgg du mooy njëkk nekk victime xëy nañu amoon victime yu bëri ñu ne laalaale nañ ko mais ne moom moo mooy victime ba te gisuñu beneen bilan boo xam ne ni mooy indi ñeneen ñu ñàkk seen bakkan loolu foog mu tey xel ak ni mu demee par la suite par la suite mooy 24 ak 48 heures de confusion bu rëy boo xam ne ni président bi waroon na wax ak Tchadien ci altine bi ndax dañ jóge ci élection mu gagné ba jël rendez-vous war a wax ak Tchadien yi. sur place de la république altine bi waxul te it ñi nga xam ne nii ñoo ngànk réew mi waxuñu nit ñi lu tax waxul ba bi ñu xëyee la ñuy door a yëgle ni mujj naa ñàkk ba kanam ci blessure yi mu jëlee woon ci toolu xare bi mën na nekk blessure yi mu jëlee ci toolu xare bi mais ci anam yi nga xam ne nii moom la amee ak ni ñu ko indee faw ñu taxaw ci mu tey xel ak it li nga xam ne ni moom moo fi mujj maanaam préparation bi ni militaire yi wat yëf yi donte dañuy fàttali ni moom ci boppam nag militaire la dafa solu solu civil waaye nag chef de guerre la euh, officier la maréchal la sax far moom la mujj woon a def boppam donc ñu nekk ci logique continuité mais loolu fekk fii mais constitution boo xam ne mooy régler problème en cas de vacance du pouvoir ci anam bu mu mën di doon. mais constitution bi dañ <laughs> waaw dañu ko teggi kay vraiment xam nga aj sax rafetal la. parce que aj ak ki am pouvoir u la mais ñi aj amuñu pouvoir u bu fekkoon ni ñi nga xam ne nii ñoom ñoo yeeyoo yor nguur gi ñoom ñoo jël décision aj xam nga président daal am na jël am na prérogative aj constitution dem ci leneen mais ñiy aj bu fekkee ni amuñu prérogative ba xëy na ci doole lañ ko jëlee mais da dañu nekk ci réew moo xam ne nag euh, ala kulli xaal taarixu militaire la parce que moom Idriss bi ci boppam ci guerre la yegsee ci xeex la yegsee donc tey xëy na dañoo delloowaat buum ca boy ci taarix bi nga xam ne moom lañ leen xamee ci ay chef de guerre ba ñu egg fii tey maintenant kumpa gi mooy naka lañu koy régler te loolu fi mu toll lii mooy problème ndax boo jëlee conseil bi nga xam ne nii militaire yi taxawal nañu ko xam nga dafa am formule boo xam ne ñun ñëpp xam nañu ko te armée de généraux ku ne xam na ni du dem parce que armée boo xam ne ñëpp ay njiit lañ. dana jafe ba pare réew mi bëri na ay généraux ci yan critère lañ tànnee quinze yi nga xam ne ñoo constitué conseil bi nga xam ne ni taxawal nañu ko tey cacophonie yi yemul foofu parce que seen charte bi nga xam ne ni génnee nañu ko 93 points charte bu bees bi nga xam ne mooy doxal seen conseil militaire bi charte bi def nañu ko ci surtout présidence bu Tchad waaye ay waxtu lañ ci teg ñu dindi ko ne du version bu baax bi mais loolu li muy indi rek mooy xëy na am na lu ñu lijjantul ci seen i biir entre généraux yi te boo demee bay tànn ay généraux nag boo tànnee quinze xëy na ña nga xam ne tànn ñu leen mën nañoo xalaat ni peut-être d'accord ñu wala bokk lu tax ñu tegee leen wet yooyu yëpp yu ñuy waxtaanee la te du 15 yooyu ñooy gouvernement xam nga teguñu gouvernement de transition gouvernement boo xam ne dañoo ne général bi mooy mini mooy ministre sàngam ba tey xamuloo ndax ministre ya fi nekkoon donte dissoudre aj nañu gouvernement bi est-ce que ñoo ñooy doxal wala conseil bi nga xam ne ni quinze généraux yi ñoom ñooy doxal réew mi tey loolu kumpa la maintenant dañoo toll ci période dëy mhm. dëy dëj bi ndax dencaguñu ko xëy na li caa ñu koy denc ëllëg si ajjuma ji ci lañ nekk di lijjante conciliable mais xeeñul lu neex. sax euh, euh, naka lañ ko mën a lijjante comme que yaa ngi yaa li nga fi wax yëpp ni yëf yi tey na xel. enquête bu indépendante yaakaarul nii mën na mën nañu ko fa def ba ñu xam exactement lan moo faat waa ji en plus doom ji remplacé ko. Mhm. doom ji euh, xanaa kay papa ji fekkee ci yeneen anam lañ ko faat wala fekkee moom raxu yi <laughs> je pense que quand même. war na mën a leer. Cheikh fi ngay waxee noonu c'est très important parce que jusqu'ici dañu déggul kenn ci cadre wax ni dinañu leeral ci conditions yi mu dee parce que vraiment. nitu boppam sax nit nit lambda sax bu daanoo ci toolu xare li ñuy njëkk a mooy ci condition yan la dee. lu toll ni nag président de la république déggoo kenn benn autorité bu càdd mu jëmee ci wàll woowu pour ñu xam ci yan condition la te gëm naa ni discours bi nga xam ne nii mooy discours militaire bu ñu reyee seen njiit ci toolu xare discours bi ñuy njëkk a gën a fësal mooy discours danañu ko venger. discours ñi def lii danañu payer mais loolu dégguloo ko fenn en fait dafa mel ni li xew ñoom ci conseil militaire boobu soit bertu leen wala amuñu ci njàqare parce que nag ñu rey sa njiit ci ñoo xam ne nii yëgle nañu ni ils vont marcher sur la capitale. parce que seen xeex bu ñu koy def ba rey njiitu force yi nga xam ne moom lañ jàkkaar lool da ngay jàpp ni bu ñu gañew la bataille franchir nañu étape bu rëy parce que quand chef de guerre soo ko éliminé si pression psychologiquement sax gañe nga une une bonne partie de la bataille mais déggoo fenn fu ñu ne ñi def lii danañu jëflanteek état bu Tchad te loolu lu tey xel la pendant ce temps là ña nga xam ne nii ñoom lañu ko jiiñ ñoom nee nañu dañuy may dëj bi passé te ultimatum ba ñu joxe woon. jeex na dañ leen di may waaye ñun li ñuy yootu li ñuy xeex pareeguñu nguur gi leen bëgg a teg loxo nguur gi ba pare nag mais li nga xam ne moom ngeen teg bi fi Idriss bi jógee ñun moom d'accorduñu ci reconnaître ñu ko ànduñu ci dictature bi ngeen di prolongé te moom lañu doon xeex. Abdoulaye ah. Cissé doguma la euh, kii dafa laaj lu am solo euh, te sànq bi ngay door yaa ngi koy wax ni ci xeex la ñëwee ci xe ci ci xeex la dese également ci pouvoir bi tey ñu ngi wax ni euh, transition bi ak doom ji 18 euh, mois 18 mois la pour amal ay élection man li may euh, laaj bi samp ci man mooy est-ce que dina yombee noonu ngir élection yi am est-ce que moom aussi kenn xamula ah, parce que li Cheikh Tidiane Diaw wax dafa am solo xel dafa teey est-ce moom tamit àpp bi mu wax bu ca yeggee dina ko joxe élection yi dina yombee noonu laa bëgg a wax xam nga ku nangu mhm. conseil militaire bii ne la on va rendre le pouvoir aux civils. Mhm. dans dix-huit mois. yaay nangu ñu fooyee sa xel. parce que comme Mali rek. parce que aussi Tchad defe naa militaire yor fa nguur sax du problème. Mhm. voilà vraiment loolu ñu wax ko c'est pas un problème parce que ci seen histoire la te da gis ni ñi nekk ci kuje politique gi. Mhm. ki dirige FAT Front pour l'alternance et la concorde au Tchad mais ancien ministre de la défense là. donc ñoom amuñu problème wu comme yenn réew yi nga xam ne amuñu histoire militaire di melewu à la chose euh, politique ñi jiite ku jéggi sax ay généraux lañu nekkoon en dissidence en un moment donné soit ñu nekkoon ci camp wu Hissène Habré wala ay nitam juboo nag am na fi plusieurs fois vraiment ci Tchad entre Idriss Déby ak ñi nga xam ne tey ñooy ay opposants Mohamed Ouri bi nga xam ne moo jiite euh, fact mooy front opposition boobu tey ñu ne seen aile militaire ñoo def combat bi nekkoon na ministre de la defence donc seqoon nañu. loolu moo lay war ni ñoom amuñu problème mu c'est-à-dire militaire jiite réew mi mais dañoo wodd wax ji rek ni dañ ko delloo civil. mais ci histoire aussi militaire téye na fi nguur ba am ci yéene summeeku ne léegi civil la wuti mais bu fekkee ni yow yaa téye yaay organiser élection yi lijjanti sa candidat kan moo sañ xalaat ni. Mahamad Idriss bii doomu Idriss Déby à 37 ans yu jox ko mu jiite conseil militaire bi yéene mooy no da à 39 ans mu génn ci nguur gi génne loxoom joxe yëf yi non conseil militaire bi dafa nekk di préparer naka lay légaliser. coup de force bi nga xam ne def nañu ko ba teg loxo ci nguur gi. parce que encore une fois constitution wu Tchad li mu prévoir. président assemblée nationale bu vacance de pouvoir amee. ñu def ko mais conseil militaire bi nga xam ni moom lañ taxaw mënoon nañ taxaw pour renforcer institution yooyu. loolu option la woon ñoom bu ñu demee bay tey bëgg a téye tey euh, nguur gi mais li gën gënoon mooy ñu proposer ni ñoom ils vont être de la légalité constitutionnelle bi nga xam ne moo fi nekk te war leen a jëmale ci ay élections parce que bu président bi nekkul am na diir bu ñu war a toog pour organiser élection ñoom dañoo waroon nekk garant wu stabilité. ak légalité constitutionnelle bi. Mm-hmm. mais doom ji tey jii lan la ñu war a xaar ci moom comme ni ñuy wax est-ce que war na exiger ñu leeral euh, deewu papaam wala. xam nga ñaar la. doom diggante papa doom moom kenn xaju ci. Mm-hmm. et on ne peut pas être plus que le roi xëy na yëg-yëg bi muy am ci papaam moom ci boppam moo waroon njëkk a yëg jóg waruloon sax talal fi mu toll nii lijjanti nu muy toogee. Mm-hmm. vraiment. parce que xëy na am na leneen lu waroon tal lu dul lijjanti nu muy remplacer bàyyi ba ca tàng-tàng ba gëmuñu ni aussi nit ñi ñoo ko fa teg xëy na seen histoire ni muy doxee ñu gëm ni lu euh, fantôme bàyyi ji moo nekk ci doom ji xëy na am na lu ñu ko ragalee xel parce que bàyyi jee ko fa teg moom moom moo nekkoon chefu garde rapproché présidentielle te suñu suñu pouvoir yi ni muy doxee en général c'est-à-dire pouvoir bi ni mu macrocéphale maanaam lépp tegu ci kaw président de la république mhm. da ngay gis ni si suñu réew yi fa ñuy naseeg no ci présidence la léeg-léeg da ngay gis chef de gouvernement boo xam ne secretaire généralu pale ba moo ko gën a puissant mhm. moom la nit ñi di gën a wuti donc c'est pas innocent que Idriss bi jël doomam defoon ko ci wetam ci garde rapproché présidence ba mhm. parce que fana la pouvoir bi nekk mhm. même pouvoir militaire bi mhm. foofu la gën a nekk que état major bi ak yeneen i généraux yi nga xam moom la ñu nemee d'ailleurs <laughs> général la <laughs> à 37 ans ñu def ko ko bon ci taarix militaire am am na formation militaire bon c'est vrai parce que loolu la Idriss Déby bëgg a def mais loolu ay ay question la yoo xam ne moo fi nekk beneen bi tamit mooy ba léegi ci nin gérer déjà mbir yi parce que nee nañ ci weekend bi surtout boo xool ñi ngi doon lire sax Jeune Afrique ñu ñëwaat ci bu baax baax ba ci talaata gi ñu ko doog annoncé te boo lire communiqué bi ak transition bi nin ko bëgg a gérer dafa mel ni kon ñoom gest gérer nañ coow li ba laata xibaar bi di fees xëy na ñoom ñu gën a asseoir seen taxawaay 24 yi moom lijjant nañu naka la ñuy def pour am stabilité. Mhm. mais li wóorul rek mooy euh, la situation sociale civile cest à nit ñi nangu te loolu apparemment ku jégi nangu lu ñu leen ko pour ñoom ñu mën a mën a transition te loolu problème lay doon maintenant càdd kenn mënu koo wax te xalaatoo aussi li nga xam ne mooy kumpa ci ñun ñëpp ba ci fii Sénégal ba ci feneen ak feneen parce que li fa nekk depuis Libye la. Euh, enfin jiitu na ko sax mais gën naa metti bi fi Xadafi nekkul te force ya nga xam ne ni ñoom ñoo fa nekk boo ci lijjanti am na fu mu lié ak force ya nga xam ne ñooy ay force rebelle yi nga xam ne ñoo tas libi tey mhm. ba tax na mën a doon bunt porox ndoll boo xam ne li nga xam ne mooy G5 Sahel te nga xam ne Tchad moo ci gën a am doole ëpp ci doole ëpp ci taxawaay ba moytul bu nërmeeluwul dana xaw na sax c'est pas innocent que président Emmanuel Macron en dépit du contexte voilà surtout sax moo waaw ban décryptage ñëw ci dëj bi loolu aussi ban décryptage lañ ci mën a def sax loolu <laughs> justement légitimé parce que mu mënuñ ko jàppee neneen euh, légitimé xëy na ñi fi nekk la mais moom li muy lijjanti mooy stabilité bi nga xam ne moom moo ko fa dugal moom Barkhane G5 li nga xam ne nii moo leen indi xeex ay force yu tuddee terroriste force rebelle continuer ci xeex boobu mu bañ a nërmeelu mais tey da ngay gis ni ñi yor conseil militaire bi en plus de lijjanti force rebelle yooyu. Mm-hmm. am nañu situation politique boo xam ne nii war nañu ko lijjanti te loolu day gën a compliqué c'est mm-hmm. important que Emmanuel Macron xool nu mu leen di dimbalee. Mm-hmm. parce que bëgg nañu ko ñoom. mais loolu moo gën a nekk problème bi tey tey tey te suñu chef d'État yi. ñi ko wër muy président Macky Sall ak yeneen doon Sénégal bokkul ci G5 mais xam nañu rôle bu mu ciy joué ñooñu tey loolu moo gën a nekk kumpa ci ñoom suñu armée yi naka la ñuy taxawoo ci situation yu mel nii malheureusement euh, ça ne sent pas bon mais nag am yaakaar rek ci kujje gi ñu am dal te Tchad bañ a dugg ci guerre civile parce que am nañu kujje politique mais li problème ma jeexalee foofu kujje politique boo xam ne opposants yi toujours exilé nañ c'est-à-dire Tchad xool ñu ko jiite même fact bi ñu ko jiite France la ñuy toog. di ko jiite xam nga loolu neexul. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, te loolu daf lay won rek ni régime bu dur la woon boo xam ne la ngay wax ci nguur gi presque bitim réew nga koy mun a waxee am na opposant boo xam ne fii la nekkoon euh, jéem na fee kii mais ba mu dëg dëgëree diggante de bi ak Sénégal finalement dañu ko génnee mm-hmm. te yooyu mooy tax ku jéggi du yomb pour ñu mën a. Euh, exercer te loolu su amul bu ñu amee porox ndoll bu mel nii rek dañ ciy profité. évidemment chef d'État africain également xëy na ñu ngi leen di xaar tamit euh, seen position ci mbir mi ndax vraiment euh, lu laal dëkk Tchad Afrique yëpp la laal suñu réew yi yëpp benn la. mais position de de kumpa la au-delà du principe ñaawlu ray bi. Mhm. xam nga li tax sax gis nga ko ñu bëri yu xuus ci wàll woowu parce que jàpp nañ ni chef de guerre la. chef de troupe la moo dem ci moom moo dem ci toolu xare bi dee fa ñu bëri mhm. ñu comme attentat wala yeneen ak yeneen mhm. regretté nañu ko rek maintenant li fi am mooy ku ne da ngay lijjanti sa bopp parce que Tchad réew yi mu séqal mhm. bu weesoo libi bu weesoo Niger ñi mu amal frontière direct tey li ku nekk di lijjanti mooy lii bu mu toj ba law ba egg feneen loolu yàlla nañ ci yàlla mosal te kumpa gi foofu la nekk dëggantaan est-ce que ñi yor conseil militaire bi sax atte nañu gere biir Tchad ba pare gérer front bi nga xamante ni mooy jóge au sud du de la Libye pour ñëw te loolu kumpa la tey. ma ngoog loolu kumpa la Abdoulaye Cissé ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci jàngat bi am na solo euh, tey nag ma leen di fàttali mbokk yi euh, ganuk info matin Mactar Dabo la expert en management euh, xamee ci wàllug management moom la ñu fas yéene dalal léegi léegi gannaaw bàkk bi.